ndax jubluwaay boobu bu leerul kon fa nga war a yem ak kudul jullit ak na nga war a jëflanteek moom doo ko mën a xam moo tax nit ñi dañu war di jàng alquran war di seet sunu si yonente bi alayhi salaatu wasalaam war di jàng siira bu baax a baax a baax ba pare dégg seen jamono bu ñu ko defee rek dañu mën a dund ak nit ñi si jàmm ak teraanga du ñaawee ci ñoom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa xam ne alquran dafa wax ne id qaala rabbuka lil malaikati jaay jaa'ilun fil ardi xalifa dafa jàng aaya bi yàlla ne wa is qaala rabbuka lil malaikati inni jaailun fi l ardi xalifa bi yàlla waxee malaayika yi ne leen def naa ci suuf bind naa ci suuf sa xalifa bind naa man yàlla suuf ba pare bind keneen ku ñuy wax nit def ko mu nekk xalifa ci kaw suuf loolu dafa am lu mu miin maanaam kon suuf si ñun la ko yàlla boole ñun ñaa ñokkan ñun ku gëm ak ku gëmul gannaaw nag yàlla dafa jël benn suuf bu ñuy wax ard muy këll bi ñu nekk bu ko neexoon moom yàlla famille bu ne mu jox leen seen suuf ndax am na ci kattan lu doy bind na ci ay mbindaa kon lu doy loolu boo xoolee ci asamaan bu guddee dafa nekk ci ay biddiw ci ay weer ku ci nekk yàlla mënoon na laa jox sa suuf nga dëkk fa ci sa jàmm waaye yàlla loolu neexu ko yàlla daf ko neex mu bind suuf si mu jël ko nag bind suuf bind nit def ko ci kaw suuf kon yàlla dafa bind suuf boole ñu si ñun ba pare yàlla ci boppam ba bindee suuf boole ñu si mu ubbi suuf soosu maanaam nit ku ne am na sañ-sañ bu ne pour dem fu ne feeg yaa ngi jub nit ku ne am na sañ-sañ bu ne pour dem fu ne manam wa inna la muusi on dafa wax ci alquran ne madat na wa inna la muusi on dama bind ard ba pare diko yakali yakali gogou amna ñuko na ñu ne mooy suuf ci day yok bët bu set amna ñuko ñu ne ya la ubi wal arda madat naaha alquran ko wax man ma bind suuf ba pare ma talal ko madat naaha dama ko talal ne wara dama ko talal mu melni lal waye dama ubi bunti ñu ne ngaret kum neex fu la neex nga dem kon nit biko yalla bindé bindal ko suuf fu ko neex war na dem maanaam bu ñu demee ba jamono ñu ne fii la Gambie yem fii la Sénégal yem fii la Mauritanie yem fii la Guinée yem loolu du xaqiqa aada la maa ma ne loolu du xaqiqa maanaam réew war a fii nit di dem ñu ne taxawal loolu ma ne du xaqiqa aada la maanaam yàlla moom ji géographie yitteelu ko fan nga dëkk yitteelu ko boo dee itam ba yóbbu na ci sa bàmmeel boo demee ba yóbbu ci sa bàmmeel duñ la laaj foo dëkk maanaam dañ la doon def la ci suuf lan nga fa def ba ba ngay dee kon nag nit ku mu am na xaq pour dem fu mu fii la kii yem ak fii la yem kooku ma ne la du xaqiqa aada la waaye nag bu kee aada boo xamante ne xaqiqa ëmb na ko it du ñaaw bépp aada boo xamante ne ndax yàlla bu ñu bindee dafa ñoo bàyyi suñ freedom ñun nit ñun ñooy xalifa ñu seet naka la ñuy yew yéwénalee suñu dund bu ñu demee ba nga xamante ne nit ki dafa saay saay bu ko bàyyee mu dugg feneen dana fa yàq moo tax ñu la ñu ne fii la yem ak fii la yem nangam nangam waaye pour yàlla fi Gambie yem ak fi Sénégal yem amut moom suuf si la bind tàllal ko kum neex fu la neex nga dem gannaaw nag noonu la te ñun ñu bokk ko te ñun ñuy nit kooku lu bay lu mat di bàyyi xel la kon yàlla bi mu bindee te ñun ñoom ñuy nit mu mu mu boole ñu suuf si ba pare ñëwaat moom yàlla moomu ne kaana naasu ummatan waahidatan nit ñi dañoo nekkoon umma waahida faxtalafu dañoo nekkoon umma ba pare wuute yàlla moom ci boppam ñëwaat wax ne jaalnaakum uh, uh, uh, xalaqnaakum jaal shuuban wa qabaila li taarafu yàlla moo ñu bind ñu nekk shuuban wa qabaila mu ñëwaat bind ñu ñu wuute wa min wa min ayaatihi bokk na ci kawteefam ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum mu bokk ci aw kawteefu moom yàlla suñu wuutee làmmiñ ak suñu wuutee melo yàlla kon neexu ko ñu nekk benn maanaam neexu ko ñun ñëpp ñu nekk weex wala neexu ko ñun ñëpp ñu ñuul wala neexu ko ñun ñëpp ñu nekk benn diine kana naa su ummatan waahidatan dégg nga dañoo nekkoon benn waaye ñu wuute wuute googu fii lañ ko fekk parce que yàlla moo bind nit ñi ba pare ne fan man saa afal yu'min wa man saa afal yàlla moo bind nit ñi ba pare ne kum neex nga gëm kum neex bul gëm kon nag gannaaw moo ñu boole suuf si ba pare ne kum neex nga gëm kum neex bul gëm kon nit ñi seen wuute dangay gis ne foog ñu wute gannaaw nag loolu am na ba pare te ñun ñu dëkk ñun nit ñu dëkk ak keneen ku dul nit jullit dëkk ak keneen ku jullit te yàlla nee na la jullit bi warta ñaawee ci moom kon war nañoo seet ba xam ñun suñ digganteeg ñeneen ñu dul jullit fan la ñuy jaar ak moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam tam jàng yàlla walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin يالا واختي القران ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين نينا فول دال فول يالا كو ام اك يونتم بي اك نيغم يالا مو خات من اي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين مانام يالا مانام بي يونت بي جانغي لول ني ولله العزه مانام فول يالا كو موم اك يونتم بي مو خم نك تام بو جيفلانتي كنن كودول جوليت wala ngay jëflante ku mu foog nga teg ko ci fulla boo ñàkkee fulla dañ la xëcc yóbbu la ci loo xamante ne baaxul jëflante ñoom ci fulla nag danay tax dangeen ngeen dund si jàmm kon danga gis ne yonent bi salaatu wa salaam bi mu jàngee lii ci la gis ne kon am na jubluwaay bu tax nit war a takk boppam ci keneen diggante jullit bi ak jullit moromam kooku moom uxuwa moo koy takk diggante jullit bi ak leneen lu dul nit ikraam moo koy ixtiraam moo koy takk diggante jullit bee keneen nga xamante ne du jullit waaye nit la ikraam moo koy moo koy takk wala qad karramna bani aadam naa hamalnaahum fil barri wal bahr soo gisee léeg ay xeex di am ay wuute di am ay fële di toj ay bom ñii di rey fële nangam nangam ki nga dëkkal <clears throat> alquran takkut la maanaam yow alquran takkut la ci moom waaye bu la alquran takkee ci moom da nga xam foo yem ak moom da nga dund moom si jàmm ak ba pare itam du dula yap parce que da ngay dund ak mom ci la da ngay dund ak mom ci yow ce système nga jël impose ko yonent bi mu jangé yi alquran mu gis né kon dana wan nit ñi lan djublu wayu ngay takk sa bop ci kenen manam public relations yow boy tak sa bop ci keneen booy jëflanteeg kenen dafa wara am lutax ndax nit boy ko xamante ne bu fekkee né bu joggé di dem fa jóg di dem xamut lu tax mu fay dem kon du xam du xam fan la war a yem ci loolu nit kuy dem rek te fa ngay dem xamoo lu tax nga dafa war a dem kon doo xam lu tax euh, doo xam fa nga war a yem bu fekkee da nga bëgg a dem am dem takku dem joon ak mairie nga def leen xarit booy def joon xarit ak mairie da nga war a xam li tax nga nga def leen xarit doo xanaa doo def nit doo ànd ak nit rek di ànd ak nit rek ngir loolu kon jubluwaayu relationship islam daf ko leeral yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund ko nga gis ne li tax góor yi nga xamante ne jubluwaay bi nga xamante ne moo war moo war a takk jullit bi ci kudul jullit euh, mooy jàmm ji mu yore jàmm ji nga xam ne moom la yëkk leer gi nga xamante ne moom la yëkk parce que allah bi dikrillahi tatma innul qulub jullit dafa am jàmm ju muy yëg am leer gu muy yëg mu yéene ko keneen nit ko xamantene Yang dem di takk sa bop ci kenen te way bi nekut pour nga séddoog mom jam ji nga amé lèr gi nga amé islam bi nga amé kon yow djum nga yunus bi alayhi salatu wa salam bam ko amé christian ya am ko yahood ya dafa amone lu taxone mu def ko kon nga gis ne diggante bi nga xamantene wala djublu way bi moo war a nekk jubluwaayu daawa jubluwaayu nga jël jàmm ji jox leen ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog benn bés saxaaba yi wër ko ndeysaan mu rëdd aw rëdd wu xóot moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëdd rëdd wu xóot ci sallañ si wu jub ci sallañ si jub xóot ba pare jàng aaya ba ci sootul anaam wa anna haada siraati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fa tafarraqa bikum an sabili yonent bi ne yoon wii moom dafa rëdd ba pare jàng aaya loolu yonent bi rek moo ko sañ ndax dayoom ci yàlla moo rëy maanaam moom moo rëdd ba pare yàlla wax loolu ñemee moo ko man maanaam yow kay da ngay rëdd ne su ma rëdd ngi nii waaye nga rëdd ba pare fekk ya rëddu yàlla la kooku yonent bi moo ko sañ te boo jàngee alquran da nga gis dayoo boobu lu bari ci alquran in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni su ngeen bëggee yàlla na ngeen ma topp boo jàngee alquran da nga ci gis dayo boobu lu bari